moom mm-hmm. waa waa ji nga xam moo tax nga jël sa bakkan di ko tey la barki démb ñu lay sànni ay xeer nga war a daw dawoo ne dee da ngay génn joxe sa bakkan waa ji moom dégg naa waaw waa ji moom comme ki nga xam naa président nga wax man président boo gisee ma koy topp soxnaam see tax sama yaay jooju la première dame Marème Faye Sall gis naa ne moo nekk sa moom laa def sama profil moom laa def sama profile téléphone seen diggante yéen ñaar la yaay bu ma bëgg yaay bu ma yaay bu ma tin jéem nañu wax lu ne pour jaxasama maak moom mais ne na xale bi maa ko gis bëggal ko sam bopp lu si nit man yàlla ko def day jékki-jékki yeeg téléphone am woo ma saytu moo tax nga am cofeel bi nga bu dee dëgg rek dëgg fa yàlla xam nga nit ku ne daf am koo koy xoolee waaw am naa cofeel président ca 2012 ba footeel ko 2019 mais tey bu yokkoo ba mënu ma ko bàyyi wala mënu ma toog sax si réseaux sociaux sànni ko xeer hmm. sama yaay jooju tax la première dame Marième Faye